yërmandeem ak xam-xamam ëmb na yaatu na lépp lu mën a doon tabam ak baaxaayam matale na mbooleem xawaalim yépp ak la wetam noo ngi seede ne amul benn buur bu moom bu ñuy jaamu jaamu ko di am njariñ ñàkk gaa jaamu di lore ku dul moom subhanahu wa noo ngi seede ne seydina muhammad mooy jaamam mooy ndawam li nga xam ne mooy borom maqaama ju yëkkati yàlla na yàlla julli ci moom ak i ñoñam ak i saxaabaam ginnaaw loolu mbokk yi nanu ragal yàlla ci li yàlla digle te mooy jëfe li yàlla digal nanu ragal yàlla ci li yàlla tere te mooy bàyyi li yàlla tere mbokk yi sunu borom wax na ci téere ba ne képp ko ragal yàlla te mooy jëfe ndigalam bàyyi tereem yàlla dana la jégal say bàkkaar te dana la jox fay gu màgg fay gu rëg gu dë gu rëy sunu borom di yàlla wax ne ku ragal yàlla te mooy jëfe ndigalam bàyyi tereem xat-xat yoo nekk yàlla wutal la ci ab génn waay te it la wërsëgale foo ko foogutu mbokk yi nanu gaaw jëm ci tuub lu njëkk ñuy ubb buntu tuub nanu gaaw jëf lu baax lu njëkk muy faat nañu farlu ci topp yàlla farlu ci jëf lu baax mbokk yi suñu borom nee na yéen sama jaam yi nga xamee da ngeen maa gëm dee leen taxawal julli di dépenser ci li ma leen jox ci li ma leen wërsëgale ci lu feeñ ak ci lu nëbb gaaw leen def loolu lu njëkk bis boo xam ne nii jënd ak jaay amu fa mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla bu nammee ci ay jaam yiw day wut waaraatekat bu bokk ci ñoom di leen digal di leen tere mbokk yi kenn ku ne ci ñun na fexe di woor di waar boppam di laa biire boppam kenn ku ne ci ñun na màng ay waxtoom te xam ne waxtu lu am solo la waxtu lu gànjaru la mbokk yi ku deful li nag sàggane sa waxtu bis dana nga ñëw nga rëccu te bu baax dana fekk rëccu wees mbokk yi nanu tuubal yàlla lu njëkk dee di ñëw nanu gaaw jëf lu baax lu njëkk ak joxe di ñëw mbokk yi nanu jokk rafetal li dox sunu digganteeg sunu boroom kon ñu taxe nanuy bareel lu ñuy saraxe kon ñu am wërsëg nañuy digle lu baax kon naataange am nañuy tere lu am nañuy tere lu bon kon ndimbal am mbokk yi bokk na ci am xel mooy bàyyi àddina gii bokk na ci am xel delloo sa bopp yàlla lu njëkk ngay dem àllaaxira bokk na ci am xel di waajal lu ñu def ci bàmmeel yi lu njëkk ñu cay def bokk na ci am xel di waajal bis ba nga xam ne nag mooy bis penc ba mbokk yi bu nu sàggane mukk xàq yi war sunu diggante ak sunu borom yàlla kat wàccoo na ak ñun yónni na ay yonant wàcc na ay téere rëdd aw yoon ne jaar leen ngir nag ñi dëggal ngir sunu borom xam ñi dëggal xam ñi nga xamee ne dëggaluñ mbokk yi nañu rafetal jëme ci yàlla nekk ni yàlla rafetalee jëme ci ñun ñi yàlla noonoo nañ leen noonoo nañu jihaat ci yoonu yàlla dëgg dëgg jihaat yàlla moom nga xam ne moo ñu tànn tuddee ñu ay jullit mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk benn dénkaane bu Sëriñ Tuubaa dénkaane woon xaritam soppe bu ñu wax Omar ñaan ma ngi ko tuddee haza taysir rahman fi jawaabi xilli Omar ñaan lii kat yombaluk suñu borom bi rahmaan la ci tontu suñu xarit Omar Ñaan ma ko tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne mooy yombal lu jafe yàlla mi nga xam ne ñëpp aajo woo jëm ci moom te moom aajowul ci kenn yàlla mi nga xam ne mooy barru mooy xadiir ba ba mu noppee mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy borom romm gi yawmal xiyaam mooy yor drapeau bi nga xam ne mooy liwaal hamd kooku mooy Muhammad ñaan julli googu law ba ci ay ñoom ak saabaam daal ne ginnaaw lii yow sama mbokk yàlla na ma yàlla sàmm ma ak yow ak ñun ñëpp ci balaa yi na nga xamee ne na nga xam ne yow Omar ñaan li gën ci li jaam bi di yittewoo ci giirub dundam mooy ragal yàlla ragal yàlla yàlla mu màgg mi sëñ Tuubaa nee na ko yow Omar ñaan xam ne ragal yàlla mooy fond de commerce mooy bopp alal mooy li am njariñ mooy musal nit ki te moo koy ràmm ragal yàlla mooy tax nit ki am tedd nga mooy tax mu am ak kawe ragal yàlla mooy tax nit ki am njub ragal yàlla mooy tax nit ki am xéewal ragal yàlla mooy fegal nit ki bépp gàkk-gàkk ak lépp lu muy jiit ca waxtu wu dee teewee ak waxtu wu mu duggee ci bàmmeel ak waxtu wu muy dekkee nee na ko ragal yàlla mooy xëcc nit ki jëme ko ci àjjana ragal yàlla mooy xëcc nit ki sorel ko sawara mu ne ko kon yow sama mbokk na nga farlu ci ragal yàlla daal ne ko bul sàkku njariñ ci kurul yàlla mu bind mbindéef yi bul ragal lor ci kurul yàlla mu bind mbindéef yi ndax njariñ ak lor du jógee ci kenn kudul yàlla bi nga xamee ne mooy as-samad ko yow Omar ñaan saa yu xéewal amee nanga sant waaye saa yu ay jafe-jafe amee nanga nga muñ na nga fexe kon ñaar yii bul ci ñàkk benn soo mënta sant na nga mën a muñ daan ko yow sama xarit na nga farlu ci jihaat sa bakkan bu fekkee ba ngaa am ngërëmal yàlla te képp ku rafetal jëme ci yow na ko sant te bu ko yeexee képp ku ñaawal jëmale ci yow na nga ko jéggal kon yàlla dana la gërëm ndax da xam ne mbindeef yépp ñi ngi ci ngëbub loxo suñu borom mi borom may yow sama mbokk yow sama mbokk bul baril ay nelaw bul baril ay wax ci lu amul njariñ nanga sax ci tudd fàttaliku dee sax ci xalam yàlla sax ci tiit tayit na bépp farata boo war a def nanga ko gaawee bu jotee te na lebal yàlla nag gën gi lebal yow Omar ñaan man sëñ Tuubaa maa ngi lay dénk sa jëf yëpp na nga ko def ci jëriñ jullit ñi tayit maa ngi lay digal na nga moytanu ko waxtu wëre ci lor jullit ñi na sax di xool sa ayib bopp walit ngay xool ayib bi ñeneen ñi kon da nga am sa ngërëmal borom yow Omar ñaan man sëñ Tuubaa maa ngi lay dénk bul ànd ak ku dul ki lay xëcc jëmale ci sa boroom ki lay xëcc jëmale ci ngërëmal sa boroom ku dul kii ci nit ñi bul ànd ak ñoom ndax kat xarit boo gis day roy ci xaritam kon yow Omar ñaan bul ànd ak lu dul xarit bu jub bu fekkee nag ba ngaa xam yi fàddu maa ngi lay digal nga laabal sa xol ci ayib bi ndax kat xayib bi mooy dàq yi fàddu yi naka noonu jëf ay bàkkaar mooy xaj nit ki ay may ku bàyyi mooy rek ami may daal ko yow Omar maa ngi lay dénk nga sox ci sunna ginnaaw ba nga jiitalee sax ci alxuraan yow Omar na nga jëfandikoo mat moom bi nga xam ne moo nekk ci tontu bii moo lay tontu maa ngi ñaan yàlla nag mu may ma may la yow itam te may ñu ak mujj gu rafet maa ngi julli di sëlmal ba faw ci yonent bi ak i ñooñam ak i saxaabaam mbokk yi dénkaani bii fanweeri bayit la waaye sëñ Tuubaa dénk na ci Omar ñaan mii ñeent fukki mbir ak ñaar te mooy ragal yàlla te mooy bañ a sàkku njariñ ci kudul yàlla bañ a ragal lor ci kudul yàlla di muñ bu nattu amee di sant bu xéewal amee di jihaat ak sa bakkan képp ku la defal lu baax nga sant ko képp ku jëfe ak yow safaan ba nga jéggal ko bañ a baril neew bañ a baril wax sax ci xalaat sax ci fàttaliku dee sax ci tiit ak jàq di gaaw a jooxe farata yi di lebal yàlla li gën di jariñ jullit ñi di bañ a di moytu lor jullit ñi tey yittewoo sunu ay bopp wëlif ay bi ñeneen ñi tey ànd ak ku ñuy tax ko ànd ak koo xam ne bu ñu ànd ak moom danañ am ngërëmal suñu boroom te bu buñ bëggee ay xam li faddu nanu fexe ba laabal suñu xol yi ci ay bi digal ko bu sax ci sunna ak alxuraan yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla boole ci yi nga xam ne buñ déggee wax dañuy topp la ci gën a rafet yàlla nañu yàlla taw feexalee ñuy jëf jëfi ñu jege yàlla yàlla nañu yàlla jégal suñu bàkkaar jégal ko mboolem jullit ñi rabbana aslamna anfusana wa in lam taxfir wa tarhamna lanakuuna min al-xaasiriin aqulu qawli haaza wa astaxfirullaaha lii wa lakum wa li saa'iril muslimiin